dal leen ak jàmm ci info 221 seen bi leen di jox xibaaru yu wér te leen ngir dara bañ leen raw mangoog conseil constitutionnel nag ma ngay làppali fas ba ginnaaw nag communiqué de presse bi nga xamante ne jot nañ ko fësal ñoom commission nationale bu yor wàllum recensement vote jot nañu procédé ni ki ci àllarba bi yemoo ko ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru mars 2024 nag résultat provisoire yi duppee ci élection présidentielle ñu doon amal dimanche bi ñu weesu ci noonu nag jëm ci circonstance yi ak lu jëm ci circo a àndu ngir mën a question ak détail li nga xamante ne war na jëm rek ci candidat yi nga xamante ne dañ bëgg nag déposer ab recours den am ci lu ñuy daal di saytu ci élection yi ñu ngi leen di sàkku nag ñu gaaw daal di ko defee laata nag alxamis bu minuit di jot bu ko defee nag ñu mun leen a addu buñ ko deful nag loolu bu passé nag kenn dootul jëla ci seeni requête conseil constitutionnel nag di accélérer cadence bi di sàkku ci kandidaa yi képp koo xamante ne rek bëgg nga déposer benn recours ci kanam nag seeni mbir am rek loo xamante ne da koy revendiquer ñu ngi sàkku nga daal di ko def alxamis bi ñu dégmal ni ki suba laata minuit au plus tard bu ko deful nag dootuñ jëlati benn requête boo xamante ne rek teg nañ ko fa circonstance la nag yu exceptionnel loo xamante ne mun nañ ko justifier ci délai boo xamante ne dañ ko daal di yëmadi kon nag conseil constitutionnel euh, laata rek ñu jël benn mbir faw rek ñu déglu candidat yi nga xamante ne dañ bëgg a déposer recours am rek loo xamante ne dañ ko bëgg a pour góor yi waaye nag bu weesoo ni ki suba bu minuy jotee rek jàppal ne képp koo xamante ne candidat la am looy ñaxtu euh, duñ la daal di euh, déglu wala sax nag duñ ko daal di téye li des rek ñoo ñu fësal ak euh, li nga xam ne rek mooy résultat définitif ci conseil constitutionnel bu ko defee rek nag Bassirou Diomaye fay ñaari fan ci weeru avril bu ñu dëgmal présent Macky Sall jébbal ko léngay mu fas yéene jiite réewum Sénégal ci jàmm ak salaam